moo ko teeru di Mamadou Badio kamara hmm. moom moo ko teeru nii euh, sécurité am muy garde du corps yi hmm. euh, ñoom ñoo taxaw di dend ak moom ak bunt bi chef de protocole bu présidence la république tamit moom ngeen gis nii mu dend ak Mamadou Badio kamara hmm. donc ñoom ñoo ko teeru xam nga sànq ba léegi ñu ngi gis ni voilà donc le président de la république euh, nouvellement élu Bassirou Diomaye Diakhar fay moom euh, moo agsi en costume mhm. cravate voilà euh, on vous laisse avec les images peut-être bu fekkee mën nañu am même le son mhm. euh, au niveau de la régie continuer en tout cas son le centre des expositions au niveau du Grand Hall Ibrahima Diédhiou voilà. on va vous passer ici on revient avec euh, euh, mais on reste sur les sur les images voilà donc ñoom dugg nañu accueilli par le président Euh, du Badio Camara bu conseil constitutionnel euh, ñoom ñu dar ko noonu donc mu ngi noonu di dugg le président élu Bassirou Diomaye Diakhar fay et qui marche de maanaam ci d'un pas ferme maanaam avec beaucoup de conviction mais surtout beaucoup d'assurance moom la ñu gis ci moom bien habillé macha allah euh, ñu euh, gis derrière lui le président du conseil constitutionnel gis nga protocole bi sax ñu ngi ko naan ñëwal nga jege ko parce que ñoom ñoo war a àndandoo. Euh, ministre des affaires étrangères bu Sénégal et derrière le président Bassirou Diomaye Faye euh, ki nga xam ne moom mooy son aide de camp militaire euh, voilà donc ñoo nara a ànd ñoom ñaar li mooy àdduna et ce sont des images qui sont qui qui marquent beaucoup d'émotion parce que on voit quelqu'un donc man dama ci am fierté ci lii nii parce que dama ko yàgg tudd moom mi fierté bi mooy dañ ko fàtte woon mais yàlla lu muy def ci nit kenn mënu ci dara dama ko yàgg tudd c'est pas pour m'en glorifier mais peut-être parce que dafa am lu ma gisoon peut-être yàlla mu jubloo woon wala ma xawoon na jublu ci ci turam ak santam ça fait plusieurs mois boobu on parlait de Sonko des autres buy def manifestation sax on n'entendait pas son nom tey mu ngi nii euh, dugg ci salle boo xam mooy saalam moom moom fa lay toog amul keneen ko fay fekk ku mu buggul mu fekk ko fa c'est-à-dire sur le plan protocolaire du kenn ku fay fekk mu toog ah bu soxlaa ndox naan ndox bu soxlaa moom ak président ñu waxtaan benn waxtaan te c'est à lui de dire au président du conseil constitutionnel mën ngaa toog parce que moom moo jiitu mm-hmm. et la salle voilà la ils ont les images de de l'intérieur du euh, mm-hmm. Euh, de la salle d'attente de l'arrivée du président mm voilà donc mu toog nii euh, am na ñuy kii naan non président voilà am na gest bu mu def waxee je vais revenir sur ça mhm. parce que dangay jàng en tant que président doo ñëw rek amul école bu ñu lay jàngalee président de la république nan ngay demee mais boo xësee doon président ci lañ lay jàngal dafa def benn gest boo xamee ni li tax ma remarqué ko am na ñu koy xelal fi mu toog am na ñu koy jox ne ko président defeel nii defel nii toogeel nii la preuve quand on est habillé en costume mhm. booy toog dangay débuté ne bouton ba nga yoroon mhm. toog na ba pare déboutonné ko pour wane ni bu dee mbirum solu ak silmeeku mën naa ko fan yi passé chaque jour ni ñi naan mhm. ah, ni mu sol wala ni mu mel wala leneen mais il a que bu dee solu mais ENA lu jógee quand même c'est un inspecteur des impôts et ñooñu kenn du ne ni xamuñu. Mhm. fa mu jaar nag ak jàngam kenn du ne xamul. Mhm. mais tey en tant que président ni mu gën a taxawee mooy wane ni ña doon wax je vais vous prouver que c'est pas une question de solo. ak simmeeku. Mhm. c'est une question de marquer son empreinte ci la ngay liggéey ba askan wi mën ko gis euh, moo tax mu toog ba pare débuté ne macha allah là on voit Déthié Fall euh, Déthié Fall ah Déthié Fall. ce qui montre encore une fois que Birahim tout le monde est présent aujourd'hui ci li nga xamante ne moom l' opposition. y mhm. la nouvelle opposition y est on mhm. annonce même Amadou Ba euh, on l' annonce peut-être que mu ngi fa ou pa on verra peut-être avec. Naomi et Madiambal Diagne Amadou mu ngi mu ngi umra. ñu en tout cas li wóor mooy y aura des y aura y a des gens du pouvoir bon El qui a été depuis le début ànd ak ñoom. Mm-hmm. Mm-hmm. bien sûr euh, vraiment euh, ci wàllu communication euh, donc. Cheikh Tidiane Dièye dafa mm-hmm. mel ni Innocence Ntap la dendal donc voilà ce sont les images je sais pas si. au niveau de la régie. Euh, ñoom Ndeye Marème Ndiaye s'ils hmm. sont pas encore ou euh, Ndeye Marème ak. Euh, Cheikh Tidiane Sène bu fekkee ne ils n'ont pas hmm. encore. bien sûr bu fekkee ne installé wu nañu mën nañu leen jot ñu dem.